jërëjëf mbokki MPROD TV yi candidat bi décédé pourtant sëñ Cissé mi bi mu koy wax def na presque trois mois dellu leen ci ginnaaw mu ne ma am na beneen candidat boo xamante nii am na lu ma ci gis pourtant am na candidat boo xamante nii dégg nañ ne feebar na ba nekk dans le coma danañ ci dugg ànd ci leeral tey VAR lañ leen di tegal VAR bi gën a rëy ci histoire politique sëñ Cissé na ma kaay ma wax la kii nekk président dimanche xam nga dimanche ñëw na ndax Amadou moo koy nekk wala ndax Diomaye moo koy nekk pourtant surprise sax mën naa am lu ci mënti am danañu ko leeral mu ne ma kaay ma wala ne ku bëri baatin laa te ku mën a seet na ma ko defee woon 2019 wax ki gagné tey nii laa koy leeralee sëñ si sama sëñ Babacar actuellement Sénégal gépp yow la ñu déglu ñu bàyyi la nga nuyoo ñu soog a xuus ci élection yi billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim a rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wa quwata ila billahi alil asim allahuma ya munawir ya fatawu nawirul xalbi bi noori mahrifatika waftah li abwaaba hikmatika wa ansur alay xasaa'inu rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne waxtu wi tembe yéenay seetaal improd ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balaq te di leen balaq di ñaanal yàlla tawfiq ak sutura ñii ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum alaaj dégg bismillah si tey ragal parce que ragaloon naa la mais dafa am yu bëri yoo ma wax ci année bi mooy bi année bi tàmbalee nga ne ma nii lay demee année bi fii lay jeexee bu ñu demee ba ci diggu année bi nii lay mel mais ba tey dañuy gis ne saa su nekk day defe yàlla da koy dogal ni nga koy waxee newoon nga ma am na candidat boobu mais point boobu sax balañ cee ñëw suñ sisee man tey li ngay seetee bëggu naa ko xam bala ma ñëw ci ay ci décédé ki tëdd en comment mm-hmm. élection yi ki war a gagné mm-hmm. sëñ sa seetu loxo bi. alaaj dégg jërëjëf. dama di jaama bu yàlla boo xam ne. yàlla daf ma may yàlla daf maa dimbale. alaaj dégg sant yàlla dafa baax. sant ga nag la ko waral mooy ne nit ku nekk bitim réew. jël loxoom bii foto ko yónnee la ko. nga xam ay mbiram. loolu bu la ko yàlla defalee war ngaa sant yàlla. fii laay toog ci sama saal bii ci bureau Serigne Babacar Sy bii ma toog fi. nga netaal sa loxo ndeyjoor bi yónnee ma ko fii ma toog yàlla xamal ma lépp loo xam ne yaa ngi koy dund. ndax wax naa ne la nit koo mën a doon ci àdduna ak koo mën a doon Serigne Cissé ne fotal sa loxo droite bi rek yónnee ma ko. loo bëgg xam ci sa bopp incha allah ndem soob na yàlla di ko xam. bu fekkee ne dañ laa liggéey nga bëgg a xam kila la liggéey. fotal sa loxo ndeyjoor bii nga yónnee ma ko. même bu fekkee ne da ngay toppatoo ay kayit nga dox ba sonn. waaw mënoo fexe ba jot ci kayit ya. waaw fotal sa loxom ndeyjoor bi wax yónnee ma ko ma wax la li xew. Mhm. même bu fekkee ne da ngay liggéey manoo fexe ba am dara. sangatu nga ba sonn. Mhm. génne nga sarax ba sonn. Mhm. saafara su ne sangoo nga ko. sunguf su ne sangoo nga ko te mbir mi ba léegi soppeekuwul Serigne Cissé ne yow mi may seetaan ci improd fotol sa loxo droit yónni ma ko incha allah lépp lu nekk ci yow dinaa la ko wax même bu dee yow la ba tey jii nga am tawat yoo xam ne dafa nekk ci sa biir yaram te xamula tawat di jël xeetu tawat la da ngay fotol sa loxo ndeyjoor bii mhm. yónne ma ko loo bëgg a xam ci sa bopp di nga ko xam mhm. ndax yàlla dafa maye te yàlla na gëm naa ne may na ma mhm. sama course gii kot soxla bu waaye mën a am moo xam yoon la woo jàpp bëgg tukki moo xam soxla sooy bëgg la moo xam sa wàllu wërsëg moo xam sa wàllu yaram mhm. lu ma la ci wax ci ak seet du dëñ waxuma laa guddi yiñ toll nag li nga xam ne moom la ma yàlla gën a mayee fatku mhm. mooy sa loxob droite bi foto ko yónni ma ko soxla boo mën a am ci àdduna wala ñu liggéey la wala jàngoro ne ci yow mhm. foo mën a toll dinaa la ko alaaj dégg loolu yàlla moo ko defal ma ci santaat yàlla bu baax a baax insha allah bu soobee yàlla. sëñ Cissé mu sëñ Babacar. radiyallahu taala dama gis ba émission bi tàmbali nga yor ak fas di takk. Mhm. sëñ Cissé fas boo ko tuddee xel yëpp dem ci nopp waaye boo tuddee fas xel yëpp dem ci li nga xamante moom mooy boole ñaar nit ñu bëggante. Mhm. da ngay dugg ci kër gis fa jëkkër ak jabar jëkkër ja toog ne jabar ja toog ne ñu mel ne ay xaja ki muus. Mhm. nga ne ma woo ñu faalaay gi li ma ciy liggéey ki nga gën a bañ boo ko defalee yow lay gën a bëgg. yàlla mi nga xam ne mooy yenkeewal jàmm di dimbale mm-hmm. xam nga lii huitaine la muy sàpp mm-hmm. coton mm-hmm. moom la ñuy liggéeyee lii te coton mag ñëpp d'accord añ ne na même saafara sax boo ko bindoon bëgg mu barkeel nga fexe ba évancé ko saafara bi ku ko sangoo loo bëgg yàlla defal la ko ndax dafa barkeel ba pare même bu fekkee ne yow tey jii dafa am koo xam ne danga koy bëgg waaw bëgg ga nag am na ñu nangu am na ñu nanguwut wala ndaw si da nga koo bëgg te yow bëggul la. sëriñ Cissé mu sëriñ kër si ne la. waaw foofee nga nekk fexeel ba xamal ma turu yaayam. Mhm. wala moom mi ngay bëgg nga xam tur wi nga xam ne moom lañ li xam moom lañ tudd ci noppam bi tëfli ko ci noppam bi. Mhm. sëriñ Cissé ne fexeel ma am ko. kerek bu yàlla defee nga jox ma turam woowee. Mhm. ba ma am ko dinaa la liggéeyal fas goo xam ne. incha allah kerek buñ ko fasee. bu dee kuñ mën a gis. dañ la koy jox nga takk ko ci sa ndigg li mhm. balaa mooy tilim ci sa ndigg li li nga bëgg ndaw si mel ko dana ko mel ni ñi nga bëgg ñu topp la danañ la topp même bu fekkee ne nekkoo fi it mhm. fas gi kerek ñu ko yëkkatee defal na ko nañ ko war a def incha allah dana la topp te dana la bëgg. Mhm. ak mboolem koo xam ne nekkoon na ca diggante ba bañ. ne yow mii daal du la nangulu la bañ na la. Mhm. ne du ànd ak yow te tegul ko fenn lu ci yaama neex ak bakkan kottu la ko teg. sëriñ si dama sëriñ Babacar ne képp koo xam ne da nga am koy bëgg. nga koy bëgg te moom daal bëggul la nobul la. Mhm. ci gàttal daal sëriñ si ne fexeel woo ma. boo ma wooyee fas gaa ngi nii danañu la fasal fas goo xam ne insha allah lépp loo xam ne bëgg nga ko ca yàlla dana la ko ca defal nañu yàlla mayee xam-xamu fasit na la ñu mayee xam-xamu baatin ci wàllu noob noob ga nag ci xaatimu musallas ci xaatimu mu rabaha ci xaati musallas xaatimu alfu buyóot yooyu yëpp borom bi wal nañ ci loo xam ne képp nit koo xam ne da koy bëgg soxna te am ñu nekk ca wet ga di la xeex mhm. ngir bañ rek nga jot ca sëriñ si ne kerek boo ñu wooyee ki nga bëgg nga jox ñu turam mhm. danañ la ci defal loo xam ne mhm. yàlla dana def ne dana la nangu ndax fa bu xiital la si kafara danañ la ci defal tasxiir goo xam ne ndax ñaar la war a bokk li nga xam ne dana la noogal xolom mu bëgg la waaye tasxiiral la ko hit ba nga xam ne dootul amati sago ci sa jëmu ji bëgg la xam-xamu noob am nañ ci boo xam ne ci wàllum mbind la am na ci boo xam ne ci wàllum fas la def rek yàlla defal la ci tawfiq insha allah. yàlla bokk na ci li muy maye mooy nit ki ñàkk. Mm-hmm. nga fexe ba mu am. Mm-hmm. sëñ si ñu gis ne téereb yàlla bi yaa ngi ciy liggéey loo xamante ni. Mm-hmm. pourtant ci garab yi nekk ci dëkk bi sax ci dëkk bi. nga koy liggéeyee. nga dem am na garab goo xamante ni ci penc lay sax. pour pourtant suuf sa boo ko tibbee. nga def ci alxuraan. ku bëgg mbooloo wala kuy jaay dara. su ko jëfandikoo ku jaay mu jaay ku jaayal mu jaay. sëñ si sa secret njarata tamit da nga cee am may. barki démb. dama lay wax ne bu fekkee ni nit dangaa bëgg mu am fatwu am ubbeeku gu mat sëkk ñëpp teg ci seen bët dama ne la mbaa xam nga leetar bi ñu wax fatiha waaw juróom-ñaari aaya la uh-huh. bu nekk ndax foog nañ ne wa in yakaadu rek lañ war a ràbbalanteeg fatiha uh-huh. sëriñ Cissé ne saa sooy bind fatiha uh-huh. nga bind aaya bu ne nga dugal allahu muhammad dugal alam nasara ba lim bëgg-bëgg ci fatiha nga am ko lu waay dëgër le dëgër le boo ko sangee ubbeeku incha allah bu àndeek dogalu borom bi waaye lim bi nga soxla ci fatiha nag limu fatiha lim ba nga ca soxla kerek bu ñu la bindalee lim boobee bind aaya bu ne ñu dugal allahu muhammad alam nasara fexe ba sa sangat ga lam war a ànd ak yëpp ñu fexe am ko ba nga sangoo ko waat naa ci dooley borom bi subhaanahu wa taala kerek boo sangoo googu sangat da ngay wéy di dimbale waaye kenn dootul la dimbale ba ilaa yomin ba si wërsëg rek nga bëgg da am am wërsëg woo xam ne dana dugg ci sa loxo ba ñëpp yëg ne yow mi am nga wërsëg te wërsëg woo jaare wu ma ko furut ci téeréb yàlla bi fatiha aaya bu ne nga dugal allahu muhammad alam nasara ba lim bi ma soxla ci fatiha soxla ko ci alam nasara soxla ko ci allahu muhammad kerek bu ma ko liggéeyee lam war a ànd ak yëpp ma jox la ko kerek boo ko sangoo yàlla ubbi say portu te saay-saay dootu ci am wàll ba ilaa yu min bansi wër sa force xëy dinaa la vaar waaw vaar bi nag euh, nekk na loo xamante ni pourtant bi nga koy déclaré yàgg na mm. sëñ Cissé mm. euh, seet defati nga ci preuve. Mhm. newoon nga ma élection yi élection yi dix lay doon nga ne ma même ñiy bëgg a nekk candidat sax. Mhm. nañu jóg ci seen bopp. maa la mais balaa boobu Sénégal am na perte bu rëy euh, muy Mamadou Yatta Saay. Mhm. sëñ Cissé élection yi diis na nag. élection yi dafa diis réew mi diis. réew mi diis. ndax ci commencement wu année bi. laa ne nekk nañ ci at moo xam ne ku bëgg a fekkee nettali yi nañ ñëpp da wuti kaaraange. amul mag amul gune na ñëpp daw wuti kaaraange mhm. ndax danoo toll ci année boo xam ne. at moo xam ne atum kaaraange la. Mhm. baax na kon bu ko defee. nañ da wuti kaaraange. Eh, ndax man li ma gis xawuma ko te li may jeneeri xaw ma ko. looy wax ni sëñ Cissé. dara jëy Moustapha. ak li a jàll lépp gis xaw ma ko li may jeneeri nii xaw ma ko man sëñ Cissé mu sëñ Babacar. élection yii li may jeneer xamuma ko li may gisit ñemewuma ko man la ilaha illallah li may jeneer ñemewuma ko te li may gisit ñemewuma ko kon lu mu lëndëm lëndëm du tee nga yeete kon la ca mën a am lu lëndëm lëndëm danaa leen di wax ne na ku ne fagaru mhm. na ku ne bàyyi xel boppam ndax man li ma gis nii mhm. dalul xel hmm, baax na te à tout lu ne mën naa xew nag dañoo des gannaawal gàllaaj nag ku ko ci gannaawal rek yi dal sa kaw parce que politiciens yu bëri yëfi tubaab daf leen a jàpp côté boobu tamit bëggoon naa wax xuus yi. gis nga waxoon naa ci benn émission ne. li bon ci àdduna mooy di tubaab tubaab lu ñu leen takkal téere bi nga naan daf may yàqal. takkal ndomba gi nga a daf may xatal. sangul saafara si nga ne day xeeñ. la sama sang ba Serigne Babacar Si waxoon rek ka fi ne. ku judul sang ñu sang la. ku judul suuru ñu suul la rek. ñun ay africain la te li ma gis nii ñemewu ma ko alaaj dégg li may jeneer nii ñemewu ma ko wuti ji kaaraange li ngay seen muy raam ni sëñ Cissé hi la si laa wa li may gis nii ñemewu ma ko ilaha na ñëpp dem wuti kaaraange ñëpp laa la wax mooy ka nekk bitim réew ki nekk fii ci Sénégal lay wax hmm. na nit ñi wuti ji kaaraange lim li liy raam ci ñag bi la jëm. mais est-ce que Jomaay mooy Sonko lii tamit man xaw naa lëmbaaj sama bopp ñu naan Sonko Jomaay Jomaay Sonko dafa am lu ma gis ci Sonko de gisuma ko ci Jomaay xaw ma nag ma xamul wala xaw ma ndax Jomaay mooy Sonko. man de pour man pour man personnellement Serigne Cissé bu Serigne Babacar. Mhm. yaa ngi dégg. waaw man dama ne Sonko moom tolloowut ak kenn. kon Sonko du man man personnellement. samay samay responsabilité bopp la. li ma gis ci Sonko. di ko yëg ci Sonko ci biddiwu Sonko li ma ciy gis gisuma ko ci benn biddiw. ilaha illallah. biddiwu Sonko. la ma ciy gis gisuma ko ci benn biddiw. allahu loolu am naa ci droit. am nag moo xam ku muy fal ndax yàllaa bind ne qul lillaahumma maalikal mulki tu'til mulka mimman tashaa'u ba ilaa aaxiri. wallaay ndeysaan. waaye li may jeneer di ko xaatar gis ko ci Sonko da gisuma ko ji jumaay ndax wax naa la barki démb guddi gi Sonko génnee laa la man de bisu tey bii la woon alxames tey jii la woon ne la bu ma sañoon ñu tëggaat élection yi Sonko bokk ci waaw ndax bañ gàcc ga boo demee da fa faa war a fekk Sonko. la ilaha Sonko laa bëgg mu bokk waaye nag kanaa campagne buñ campagne ba ne gannaaw suba la ñuy tëj ma taxawante naan Sonko laa bëgg mu bokk Sénégalais ni ne kii est-ce hmm. dama gis benn sëriñ bu taxaw. Hmm. daan ne Ba amul gàllaaj mu ne Amadou Ba biddiwam taxawul. Amadou xamul gàllaaj gu nit da takk ci ndigga Amadou gàllaaj lii la xam. mën naa laa wàññeel juróom-ñeent fukki góor quatre mag. ñoo xam ne mag mu ne fi mu dëkk ak fa meneen ma dëkk bokkuñu te kenn ku ne Amadou nga téel kurus. te mën naa laa jàpp loxo par do loxo ba génne la quatre vingt dix quatre vingt quatre dix mag ay paa. yoo xam ne seen tànk mo su dugg fii ci ndakaaru mën naa la koo génneel. te ñoom ñëpp ci Amadou lañ ne. mën naa la koo génneel. alaay dégg. na ma nit ñi gis may toog di wéeru. rek. Mhm. waaye li ma xam ci ñiy jàppal Amadou kurus moom bu ma la ko doon wax duñ fi jóg. amul gàllaaju lu ñuy takk ci ndigg moom gu gune di gis. baatinu Amadou gune du ko gis nag moom. Amadou xaqiiqa la yor xaqiiqa xam nga xaqiiqa xaqiiqa la yor de. Amadou boo seetee. bu dee nit ñi am nañu sell. Amadou defa demoon ba mel ni biddiw mel ni dafa gëmmu. mu toog benn fan yëfi mel ni ab pitaar ne teel ci kaw. kon kurus day bette. kurus li muy def ci nit lenn du ko def ci nit. wilaayatu dëgg. Mhm. barke dëgg kurus a jox nit. sang nag man ngaa sangu ba nit ñëpp séen la waaye pour nag pour la nga bëgg dëgg am ko moo jafe-jafe. su ma dal élection yi passé 2019. man bi may jógee sama kër dama jëloon décision ne. dara jëy Moustapha Barkeem Serigne Babacar yàlla xamal na ne ne Idrissa Seck laay votel ma dem ba ca kii ba votel Macky Sall. loolu xam nga lu koy def. nit ñi danañ dem ba yow nit dina toog di tasxiir nit ba mu def loo xam ne génn soo ko comprendre. fekk dugal na ca enveloppe ba waroon a def jumaay def ca Amadou. man idée nekkoon sama candidat mais ba ma dee ba jàkkaarloo photo yi dama décider ndax naa woteel Macky rek. loolu xam nga lu koy def dañuy tasxiir nit ñi ba ñuy def ay njumte mhm. te loolu li koy def du lenn ay dog la ñuy liggéey nit ñi di gëlëm di woote ji mhm. pare kenn ku ne naa waa lii est-ce que ça mhm. loolu day am ta mag ñaa ngi liggéey liggéey boo xam ne fii ci dëkk bi ma leen di janeer ndax li tax lu nit di rëkk ci dëkk bi ma gis ko ci digg Ndakaaru laa dëkk ci monument bi moo tax lu nit di def ci dëkk bi ma yëg ko waat naa ci yàlla darajey Moustapha alaaj dégg bu ma bañu doon fitna dëgg wax la ki war a dem pale ba euh, darajey Moustapha barki Seydi Aboubacar si mi ma yaakaar mhm. billahi lasi laa ilaha illa hu sëriñ Babacar si rek laa yaakaar te moom laa doyloo mhm. bu ma bañu doon fitna ak tas yaakaari kenn ma wax la ki war a dem pale mhm. billahi yaa ngi may dégg. waaye nag am na loo xam ne Serigne Cissé. mayul ko ko wilaayam mayul ko ko waaye daraja yi Moustapha. Serigne Babacar Sy xamal na ma ki war a dem Palais. xamal na ki war a dem Palais. dimanche dimanche kii ëppale ci carte yàlla xamal na ma ko man sëñ Cissé mu sëñ Babacar wasalaamaaleykum. xam nga jomaay daf fee war fas yor fi bale. Amadou Ba yéeg fi ci oto yëkkati ñaari loxo am ñu ko sinap ci biir oto bi waaye ñaar dama gis jumaay def ko mu xaw maa jaaxal man sëriñ si mu Seydi Aboubacar si mooy bale gi nga xam ne yor na ko ci kaw public bi xam-xam bi ma xam ci bale nag tojal la tojal wu cereeg soow la mhm. cereeg soow nag ñaari bu la ko mag ñi di digal yaakaar juy tas day feeñ ca yooya mhm. xaama kan moo ko warloo fas wi waaye kooku mu ngi bëgg a indil erreur jumaay mhm. baaxul ci moom ndax fas wi bu fekkoon ne fas wu xonq la walla fas wu weex jaakeer wala am xac man moo ma gënal ci kuy xëccoo réew. bu fekkoon ne tey maa yor baatinu jumaay. fas wu weex furu laa koy warloo wala wu xonq waaye du ma ko warloo wu def ci rek soow. Mhm. bale googu it xaama luñ ko digal la xaw ma waaye man sëriñ si ne mu sëñ Babacar d'accordu ma. ndax jumaay ndaw ñi dañoo am ci moom yaakaar. kon dafa am yoo xam ne nit warul nangu di ko digal ca loola. communication jumaay loo ci gis. moog Sonko ku gën a fees ay communication. du kenn. gune yi ñu bëgg tëkkaleeg Sonko Sonko du kenn. Mm-hmm. te kuñ ko fi tëkkaleeg ci gune yi ñu ngi lay nax bokkut ak ñoom benn melokaan ci fenn nag laa la wax. Mm-hmm. nit nag booy wax. Mm-hmm. wax ji seede loo ko yàlla du kenn ci ñoom. du kenn ci ñoom. ci ci xam-xam. ci ci ci ci ci barke. ci wilaya. ci lépp nag ci wërsëg ci bidiw. Sonko Sonko daal mu ngi noonu mujjadi la. yàlla yàllaa ko def nam ko def kuñ ko bëgg a lëkkaleeg nag nañ la ber yow kenn ber Sonko bu ko defee da nga wéet. Sonko jaar yoon wi nga jaar yoon wële. da nga xam ne bokku leen. wax jee fi ne rek. Mhm. dëgg la. sëñ Cissé mu sëñ Babacar si tey la ñu fekk si tey ngir leeral xam-xam waaye ngir leeral njariñ muy ku yàlla baaxal di ko xamante ni dafa am kéemaanu yàlla def ci moom gis ngeen li mu leeral ci élection yi am na solo mbokki numéro yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah